ba tey mën na koo ñaanal ñaanu yonante ba te mu siiw ci téere yi adhibil ba'sa rabban naas ishfi anta shaafi laa shifaa illaa shifaa'uka shifaan laa yugaadiru saqaman teggi ni seeti ku tawat nag dañuy wax ne daa bari waaye yett yi moom boo ko sàmmoontee rek danga am tuyaaba ju mat ba jëkk mooy waxtu wa ngay dem di seeti ka tawat nay waxtu woo xam ne ka ngay seeti ci boppam tam tawat ak waa kër ga ci boppam kenn du ca am lor ci waxtu nga ñëwee nga demee ci waxtu yell ci seeti ku tawat nga xam ne daal moom ci boppam waxtu wa nga ko seeti du ci am genn xat mbaa genn tiis waa kër gam nekkal tam noonu duñ ci am genn xat mbaa genn tiis ndax loolu mooy benn ñaareel ba mooy nga wétli ko as ndiir fàttali ko mbaax gu yàlla ak yërmandeem ñaanal ko yàlla wéral ko te yàggal ko fi ñetteel bi nag mooy mu bañ faa toog mu yàgg diir boobu mu fay toog ba mu yàgg ndax addis ba dane woon rahimallahu xabdan zaara fa xaffafa yàlla yàlla wéram ab jaam boo xam ne daa nemmiku mbokkam te bañ a yàggal muy fa xaffafa bokk na ci teggi ni seeti ku tawat nag mu di ko seet rek te yàlla tax du rek bañ bu wéree yedd ko ne ko yow day du tax seet si woo ma dañoo taamu itam bu fekkee da nga koy seetee ka seetiwaat ngay jénnal te bañ a def bis bu ne nga dem lu may da ngay mbokkam mbaa xaritam mbaa ngay ko ñu yaakaare barke mbaa ngay koo xam ne daal moom bu la gisul rek day wéet kooku moom mën nay sësale ak demam du aajowoo muy jénnal bu ñu nee itam seeti ko tawat amul wenn waxtu wuñ ko jagleel lu may rekk na fexe bay dem ci waxtu wu yell wu jaadu teewul addis ba daa mel ne daa taamu waxtu suba maamin muslimin yaamoodu musliman xudwatan illa salla alayhi sabuhuna alfa malak ab julit bu xëy seeti mbokkum julitam rek faaw rek juróom-ñaar fukki junni malaaka ñooy koy ñaanal njéggal moom mi tawatit am na ay teggin yoo xam ne bu sàmmoonteeg ñoom dana tax yàlla fay ko tuyaaba ji gën a mat ca tawatam joojee bokk na ca mu góorgóorlu ci lépp li ko war ci xeet topp yàlla te man ko rek mu di ko def bañ caa bàyyi dara dara rawante na julli julli moom lu mu tawat tawat li fekk mi ngi ci xelam rek moom war na koo def ci waxtu wa ak nam ko mane daa am ñu defe ne sañ nañ buñ tawatee bu mënuñoo set nañ war a sete mbaa mënuñoo jullee nañ bëgg a jullee rek ñu sañ a bàyyi ba tane daal di fay julli yooyu waaye déedéet loolu lu araam la sañee su ko li fekk daal mi ngi ànd ak xelam moom su waxtu julli wa jotee rek nam ko mane na jullee noona su mënta laabit na julliwaale sobe sa du ci wàññi dara ndax mënta daagoog sobe sa ba tey mu fexe ba yaakaaram muy rafet njortam ci yàlla ëpp ak ragalam ndax la addis ba waxal ne suñ boroom nee na sama jaam lu mu jort ci man rekk ca laa koy fekk bu jortee ci man aw yiw aw yiw la fi fekk bu jortee ci man safaan ba it noonu ba tey la ko dal mu di ko nëbbu su ko mënee nëbbu bañ koo wax bañ koo jàmbat kenn ku may yàlla boroomam du tee nag ka koy faj moom mën na ko ko wax leeral ko ko teyit mu sukkandikoo yàlla jàpp ne mooy faj te bañ a jàpp ne garab gi muy naan moo koy faj te jàpp ne yàllaay faj waaye du garab gay faj garab gi da koy jëfandikoo rekk ngir yàlla digle ku faju ak sabab lu rek waaye yàlla ci boppam lay jàpp ni moom mooy faj bu mu baril xeeti wonk ak binni ndegam mën na koo bañ a baril fekkee nag
mën naa wonk rek tuuti ndax am na xeeti wonk yoo xam ne su bariwut nooflaay lay doon dimb lay doon ca ka tawat muy gërëm itam li yàlla dogal ci moom muy teg ko tawat ji na ko gërëm rek te bañ caa xarab yàlla bañ caa mer bu naagoone tawatam ji du ci jógaatit mbokkam ya nga xam ne bokkuñ ci ña koy doon su amee alal mën naa wax ne nañ ma ci joxal ci ñooñu diw nangam diw nangam te bañ a weesu ku defoon alalam ñetti xaaj benn ba ndax sañes naa dénkaane su ma fi jógee sa alal nañ ma ci joxeel nangam mbaa defal ma ci nangam waaye nag buñ ko defee ñetti xaaj ci benn ba la koy sañ ñaar ñee moom ñee doon ñoo ko moom luñ ci wéyal mu wéy luñ ci wéyalut du wéy dañuy bañ lool nag faatu te dénkaani woo sa gannaaw nee nañu bu faatoo rek te dénkaaniwul gannaawam day mel ne sàggan na ba mottalee jëfam ak mooy yàlla te mooy ñàkkam ñàkk dénkaane nay bari la wax laa ilaha illallah tey jéem laa ilaha illallah mujj ci làmmiñam ndax li ñu wax ne ku laa ilaha illallah mujj saw làmmiñ nga dem àjjana nay jéem di jëf lépp luy andi tuyaaba ndegam mën na ko ci yaramam ni ki julleeg lu ko nuru su fekkee yaramam mënta yëngutu nag waaye làmmiñam moom mën naa wax nay bari la jàng alxuraan ak zikkar kem kàttanam su fekkee àgg na ci mënta jàngalati boppam mënta zikkaralati boppam mu digal ku ko mën a dimbale toog fi wetam di ko jàngal ak a zikkaral xeeti zikkar yi moom na ca baril istixfaar maanaam sàkku njëgal rawante na lañ tudde woon sayidul istixfaar te mooy allahumma anta rabbi nañ ko xewoon ci gannaaw ba mu àgg fa mu war a yem képp koo xam ne itam daana jëflanteeg moom muy soxnaam muy kenn ci njabootam muy waajuram na sàkku ci moom mu njëgal ko lépp lu doxoon seen diggante bu dee jàng ka sikkar itam la muy baril na ca boole saaru lixlaas qul huwallahu ahad muy gën a teewlu ci xelam ne yàlla day moom moo digli ak topp moo aaye ak mooy moo dële àjjana ca topp ga tëkkoo ci mbóola sawara ca moy ga waaye ci dëgg-dëgg nag topp ga kat du ko jariñ dara moy ga it du ko wàññi dara loolu mu di ko teewli ci xelam dana tax mu ëppal doole ak rafet njortam te muy dénk njabootam ñu topp la addis ba waxan ne inna min abarril birri an yasila rajulu ahla wuddi abiyi addis ba dane woon bokk na ci rafetal gannaaw sa waajur nga fexe ba ñu amante woon ak jàmm ak sa waajur nga leen di toppatoo mel ne yaa wuutu sa waajur ci ci jàmmoonteeg dimbalanteeg yërëmante bu leen di fàttali ne leen yonante bi kat gannaaw bu soxna Xadija génne àdduna jigéen ñi daa ànd ak moom da leen daan teral moom yonante bi te jublu ci woon lu may rafetal digganteem ak Xadija gannaaw bu soxna Xadija génnee àdduna
dañoo taamu rek sax ci gàttal képp koo xam ne sa soxna la woon mbaa sa jëkkër la woon mbaa yàlla boole woon bu fi jógee rek ngay sàmmoonteeg ñam bàyyi gannaaw ndax seet sa digganteeg kookee dem te yàlla boole woon leen
mu leen di dénk bu baax a baax it ci su ma fi bàyyi ko na ngeen may ñaanal aka saraxeel ndax dogu nañ ci ne ku génn àdduna ñaanal kook saraxeel ko moom faaw rek mu jot ca lañuy werante kay mooy jàngal ko alquran mbaalu ko nuru te wax jëkkëna wóoru mooy waaw moom it dana ca jot loolu lañ
warat duka ak sag delloo assalaama nuyoo ba daa waxan léegi siiwal ab nuyoo maanaam di nuyu ñëpp koo xam ak koo xamut mu ne nag bokk na ci teggiin buñ la nuyoo nga fay kala nuyu fay kala nuyu sax moom daa bokk ci waru gar yi doon fardu kifaaya nga xam ne bu fekkee mbooloo lañ nuyu bu ca kenn rek fayee yóbbaale na ña ca des bu ñëpp maasee kenn bañ caa fay nuyoo ba ñoom ñëpp ñu bokk am bakkaar nga xam ne kon njëkk a nuyoo sunna la fay nuyoo ba nag moom waru gar la teewul nag sunna si mu ëpp tuyaa ba waru gar wi ndax daa am yoo xam ne la cay sunna moo ëpp tuyaa ba la cay waru gar bokk na ca waajal julli gi balaa waxtu waa jot xam nga su waxtu jotee ba nga xam ne boo waajul rekk julli mu raw la moom daal di waaj mënta ñàkk waru gar la waaye nag laata waxtu way jot nga waajal ko moo ëpp tuyaa ba yéex koo waajal ba àgg ci boo ko waajalu julli ko mu raw la ba tey ku la ameel bor te mënta fay nga muñal ko ba mën a fay moom waru gar la sañoo ko bañ waaye nag lañu sopp te mooy nga jekki-jekki baal ko lam la ameel baal ga lam la ameel la muy doon doon luñu sopp ba ëpp tuyaa ba waru gar wa te mooy muñal ko ba mën a fay fay la gën nag mooy kala nuyu bu ne asalaamaaleykum yow nga ne ko waaleykumu salaamu jàll ci wa rahmatullah boo yemee ci waxaleykum salaam daañu la bindal fukki yiw boo ca boolee wa rahmatullah ñu bindal la ñaar fukki yiw boo ca boolee nag wa barakaatu ñu bindal la fanweeri yiw kon booy fay ab nuyoo nga ne ko waxaleykum salaamu wa rahmatullahi wa barakaatu moo ci gën bu dee nag koo xam ne soo ko nuyoo jàpp nga ne du la fay dañu nattable ba xam nga nuyu ko ba noppi ne ko fay ma waay ndax looloo gën am rek nga bañ koo nuyu ndax mën naa am nga nuyu ko fayu la mu gàddu ca bàkkaar ci ñàkkam la ñàkk fay na la yaa ko teg bàkkaar ba loolu am nañ ci ak déng-déng ba xam loo ca war a def lu wër na itam boo ko nuyoo nuyu ko da koy naqari moo mën nga koo bañ a nuyu te du tax ñu jàppe ko tongu maanaam jàmb gañ la aaye woon ci gannaaw ndegam moom boo ko nuyoo da koy diis da koy naqari bañ koo nuyu du tax ñu jàppe ko ak tong guy aay xud jàppal xaribi sama way waxamdu xaatisin ak santuk aji tisli wa tashmitun akuk ndokkeel yu radduug def na ko delloo wa saddu famin ak sakk gémmiñ biyedin ak loxo li tasaawu bin ngir bel beli bokk na ci teggin yu fes yi ku tisli mu sant yàlla am na ñu ne sant ga yàlla moom mi tisli lu ñu sopp la am ñu ne àgg na ci sunna day wax alhamdulillah am ñu ne da cay dolli rabbil alamin ab tabaraani dafa nekk li ne kenn ci yéen bu tislee wax alhamdulillah malaaka yi dañuy wax rabbil alamin su fekkee moom mi tis li yëmut ci alhamdulillah da caa boole rabbil alamin malaayka yi ne ko rahimakallah yal na la yàlla yërëm ci kaw nett li boobu nag kon ku tis li rek say boobu wax alhamdulillahi rabbil alamin addis ba nag nee na woon kenn ci yéen bu tislee wala mu géex bu mu yëkkati kàddu ga ndax seytaane bu sañoon kay tisli mbaa kay géex yëkkati kàddoom wa ida xatasa ahadukum aw tajashaa fala yarfa bihima sawta inna ash-shaytana yuhibbu an yarfa'a bihima sawta wax nañ ne boo farloo ci boo déggee ku tisli yow mi nga xam tisli woo nga gaaw sant yàlla ni alhamdulillahi rabbil alamin yàlla musal la ci metitu bëñ ak metitu nopp ak metitu biir bokk na ci teggin yi ba tey bu kenn tislee ba nga dégg mu sant yàlla nga ndokkeel ko ndokkeel gi mooy nga ne ko yarhamukallah yal na la yàlla yëram waaye nag bu fekkee déggoo mu sant yàlla moom bul ko ndokkeel moo tax ñu bëgg ku tisli mu sant yàlla te wax ko ci kaw bañ dégg ko ndax ñu mën koo ndokkeel ndokkeel googu sax ka tisli am na ñu ne fardu kifaaya la am ñu ne sunnas kifaaya la am ñu ne lu ñu sopp la bu ko ko tislee nag ba sant yàlla ba nga ndokkeel ko bu mu tee bu tisliwaatee nga dellu ko ndokkeelaat ba mu yetti yoon bu tislee yetti yoon bu ci nekk mu sant yàlla bu ci nekk nga wax ko yarhamukallah foofa ngay yem bu tisliwaatee da ngay xam ne kon dafa soj rek nga ñaanal ko yàlla faj ko ca soj ma waaye bu tisliwaatee ba sant itam gannaaw ñett yi moom bul ko ndokkee laat moom mi nga xam ne nag moo tisli buñ ko ndokkeelee ba ne ko yarhamukallah sopp nañu mu delloo koo kee wax ko ne ko yaxfirullahu lana walakum mbaa mu ne ko yahdikumullahu wa yuslihu baalakum mbaa mu boole wax ko yaar yépp bokk na ci teggin itam bu belbelee mu bañ a bàyyi gimiña mu ubbi ko rek di wal xanaa jël loxoom ubbe ko gimiñ ga ndax dañuy wax ne belbeli dafa bàyyi ko ci saytaane te bu bàyyee gimiña mu ubbi ko noonu rek saytaane dugg ba noppi di ko reetaan jamono ya muy belbeli nag bu fekkee mu doon jàng lam jot a jàng ca waxtu wa muy belbeli na ko jàngaat bu mu ko bàyyi noona wa hakaza niki nii alfitratu sàmmonteeg dundub yàlla bu rafet bi wastiisaanun akuk diisoo qabla duxoolin ci njëkk dugg ayuhal ixwaanu yéen mbokk yi ba tey way wii wax na ci yaari teggiin bi ci jëkk nag mooy ni la yàlla binde nga sàmmoonteeg la koy rafetal loolu nag ay mbiri mbir la yoo xam ne bokk na ca lewi ay we lewi ay we bëgg nañ nga sàmmoonteeg moom di ko def ajuma june ba tey jémp ay naanu ay naanu de su ko wat ba mu set ndax bu dee ci yoonu Malik wat sikkim ak wat ay mustaas ba mu set dañ koy araamal waaye nag naanu yi bu guddee dañuy sopp mu jemb ko ba mu wàññi ko sopp ni bu dee jemp ay mustaasam mu njëkke wetuk ndeyjoor gi bokk na ci li rafetal bindub yàlla bi bu ay poqtaanam amee kawar mu xus ko ba mu set bu xus ga day metti ci moom mën na koo wat mbaa mu def ci rek luy dindi kawar ga dañoo bëgg nag bu lewi ko mbaa mu watu mu suul weya ak kawar ga ndax li ko yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam digle woon bokk na ci rafetal bindub yàlla bi bu amee kawarug naq mu wat ko bokk na ci it bu dee góor mu xaraf bu dee jigéen mu tonniku xaraf ci góor moom miin nañ ko tonniku ci jigéen nag moom dafa bari ñu koy sikkal di ko aayal lool waaye daal sax na ci addis bi yonent bi digle woon ña ko aajowoo ci jigéen ñi ñu defal leen ko te bañ ëpp yooyu ñu wax nag muy lewiku ak jemp mustaasi ak wat kawaru naq ak xus kawaru poqtaan ak bu dee góor mu xaraf ak bu dee jigéen tam aajowoo ko mu tonniku yooyu yépp def ko baax na lool ndax day tax ni yàlla bindee doomi aadama te rafetal ko rafetaay boobu gën a feeñ ndax su boroom dane wa sawwarakum fa ahsana suwarakum maa leen bind rafetal seen melo kon nag mel na ne bëgg na ku rafetal melowa bañ caa bàyyi dara lu koy ñaawal tegginu ñaareel bi mu wax ci way woowu mooy diisoo bala ngaa dugg ci néegub keneen bu dee mag moo xam ne kàllaf la waxtu ne balaa dugg ci néegub keneen rek na yëglu bañ ko ne jàll sil mu door a jàll si bu dee nag day gone wala muy bëkk néeg wala muy mindaan moo xam ne mooy liggéeyal borom nee ba am na yetti waxtu yoo xam ne nañ ca sàmmoonteeg yëglu googu bala ñoo dugg mooy waxtu yeewute man naam ka doon nelaw di door a yeewu jotaguta solo ak waxtu bëccëg woowu nga xam ne mën naa am borom néeg ba summiku di dallu sangut yaramam na mu war a sàngoo kooku balaa kenn dugg donte bëkk néegam la mbaa ku koy liggéeyal na yëg lu njëkk ak waxtu tërte mën naa am kooku summiku ba tëdd mel noo xam ne bëggut ko fekk ca biir waxtu yooyu daal gone ak mbindaan ak bëkk néeg dañuy diisu ci waxtu yooyu ku bokkut ak ñoom nag moom balaa dugg ci néeg jàmbur rek na yëglu te bañ a jekki-jekki dugg am na nag yoo xam ne aajowul yëglu mën ngaa jekki-jekki dugg jàkka mën ngaa jekki-jekki dugg boroom xam-xam bu amee néew boo xam ne fa lay jàngalee ko ubbee ñuy laaj néew boobu mën ngaa jekki-jekki dugg ki àtte itam fa muy àttee mën ngaa jekki-jekki dugg docteur bi faj fa muy faje mën ngaa jekki-jekki dugg nitu xarala ki di liggéey ñu koy fay muy tëgg yi muy wóode yi muy ñeneen ñi ba tey mën ngaa jekki-jekki dugg te doo yëgloo li ñuy diisoo nag mooy bu la wóoree ne kenn ngi fi te boo waxee mu dégg la ngay wax asalaamaaleykum jiital nuyoo ba boo ko waxee yetti yoon te jàpp ne dégg na ko dalaa fayut nag nga wàññi ko xam ne kon yooyu jamono daa taamuwut ko àgg ca moom su fekkee xamoo kenn nga fa am ndéet mën ngaa njëkk xaddamiku mbaa nga fëgg bunt ba bu la nee war ngaa yëglu bala ngaa dugg nag doonte kooka sa yaay la wala sa mbokk mu jigéen la du ca dara na nga yëglu njëkk ba mu ne jàll sil nga door a dugg ndax bëgguñu nga fekk ko ci noo xam ne bëggutoon nga fekkee ko noona boo nuyoo ñu ne ana kooku itam na nga jaay ci saw tur ak saw sant bañ xam ne kooku diwa bul na rek mën a mën a dañuy wax ne am na ñetti baat ñoo xam ne ku yobu moytu ko ana mën a ndax la fi xam ne woon ana rabbukumul a'la ak baatub lii ñeel na ma ndax la fi xam ne waxoon ne alaysa lii mulku misra ak lu mel ne hindi nekk na fi man am naa nangam ndax la xaaroo ne woon innama utiituhu xalaa xilmin hindi ñu wax iyaakum wa salaasata alfaad fa inna biha halaka man halaka ana li qawli firxawna ana rabbukum al aala wali li qawlihi alaysa li mulku misra wa indi li qawli qaaruna innama utiituhu ala xilmin indi du sax wax baat yooyu rek moo aay waaye wax ko noppi jublu ca damu tiitaru ni nga xam ne moom la ko ka waxan baat yooyu waxe woon loola moo aay nde wax baat yi ana man ak lii ñeel na ma ak hindi képp boom te jubluwoo ca tiitaru mbaa damu daa fekk rek baat boobu dëkk foofu nga wax ko fa dara nekku ca
do bëgg dugg sa neegu bopp itam te yaakaar ne kenn nga ca kooku bàyyiwutoon na nga yëglu xaddamiku mbaa lu ko nuru mbaa boog nga wax asalaamaaleykum ndax nga bañ a fekke kooka ci noo xam ne bëggutoon nga fekke ko noona wa minhu bokk na ci teggin yu fés yi xaful mar i jéggalek cam sa xam man walis ka nga xam ne wala ma tooñ na ko wa misluhu am kemam la i'taa'uhu joxam nga man ka nga xam ne xarama xañ na ko wasilatun akuk jokk li kulli sax si ñeel jëpp jëmm xataxa joj dog na ko bokk na ci teggin yu fés yi ku la tooñ nga baal ko tax sun borom ne wal yaafoo wal yasfaxoo ku la xañ yow nga jox ko ku la dog dog sa digganteeg moom yow nga jàpp ko jokkoonteeg moom bañ a dog bokk ko dox seen diggante mbaa bu mu kolore ka doxoon seen diggante hadis ba nee na amarani rabbi an asila man qataxani wa ontiya man xaramani wa afuwa xamman zalamani saa borom dama digal ku ma dog man ma jokk ko ku ma xañ ma jox ko ku ma tooñ ma baal ko yett yooyu nee nañu ëmb na makaarimul axlaaq tedd ngay jikko yi ku ñuy wax alfudaylu nee na yàlla bu bëggee may ab jaamam may gu yéeme day xabtal ci kawam ku ko tooñ su ko defee nag bu jéggalee ko ko tooñ bañ a fayonteeg moom ci la ko yàllay maye loolee mu ko maye hadis ba nee na man daha ala zalimin faqadin tasara minhu bu la kenn tooñee nga ñaan ko yàlla maanaam ñaan yàlla teg ko musiba rek day mel ne fayu nga kon ku la tooñ da nga koy jégal ngir yàlla te bañ a fayu bañ koo ñaan yàlla wal birru ak mbaax wala ak topp wala defal njekk ay don ba tey fanta bi na nga yeewu wat tabi ante nga topp ba tey al birru defal keneen lu baax defal ko njekk defal ko teraanga te yàlla tax te loolu mooy nga di ko jox loo am ci lu baax di ko laabiire ci lu tax mbirum baax di ko bëggal aw yiw ni nga ko bëggale sa bopp bëgg ko te yàlla rek tax doonte dafa ñaawal jëm si ci yow loolu mooy albiru sopp nañ nga def ko sa digganteeg bépp julit waaye nag bul bëgg kenn ngir daray àdduna bul bañ kenn itam ngir daray àdduna hadis ba nee na alxubbu fillaahi walbuxdu fillaahi min awsaqi xoral imaan di bëgg te yàlla tax di bañ te yàlla tax mi ngi bokk ci buumi gëm yàlla yi gën a dëgër am na ku ne woon ku jàppoon ci saa loxo dugal ma àjjana dama gis la ngay mooy yàlla it du tax ma bëgg la mooy ga nga mooy yàlla mooy tax rek duma la bëgg kooku dane woon law axada axadun bi yadi wa adxalani aljanna wa raaytuhu yaasi llaha ma ahbabtu nee nañu yàlla sun boroom dafa wax yoonu muusa ne ko muusa ana loo ma jëfal ne ko saa boroom jullil naa la wooral naa la saraxel naa la tudd ay yëf yëf sunu boroom ne ko loolu kat day mel ne mën nga ko defal waaye sa bopp nga ko defal ndax ak jaamu yàlla la goo xam ne jéggiwul sa jëmm te dama lay fay tuyaaba ja ndax fekk gon nga koo xam ne sama xarita nga xaritoog moom sama jëmm ji tax wala fekk nga koo xam ne saab noona nga noonoonteeg moom sama jëmm ci tax bi yàlla waxee loolu Moussa daal di xam ne kon li gën ci jëf yi mooy bëgg te yàlla tax ak bañ te yàlla tax kon al birru defal njekk sa mbokkum julit te yàlla tax moom bul ci xeeb dara dara bu dee gumba mu aajowoo ku ko womat nang ko womat ndax hadis ba nee na man qaada ama arbahina xutwa ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi ku womat gumba lu mat ñeen fukki jéego yàlla jégal la la nga weesu ci bàkkaar ba tey mu ne woon yaa aba hurayrata ida qutta ama fa xud yadahu biyadika alyumna fa innahu sadaqa ya aba hurayrata man masha maha ama milan yurshiduhu kana lahu bi kulli dirahin min almili hitqu raqaba mu ne abu hurayra boo dee womat gumba na nga jàppe loxoom sa loxob ndeyjoor ndax loolu da nga ci am tuyaabay saraxe ne ko ku ànd ak gumba di dox bëgg koo tegtal ba dox lu mat kilomètre